الحمد لله الذي يصلي daal man daal fi dool nii daa ni man jenn itte laa muy nu ñuy def wajeeku màggal gi Makka gee donte dem naa fa ren jii dem naa fa waaye wax ne man ma demee Makka Sëñ Tuubaa dong laa fa yëg ku ma fa beneen yokk man bañaa may ne dama bind jës ma muxaddimaat sama loxol bopp moom laa aje moom laa umra moom laa tawaafe moom laa safa ak marwa fu ma jëm daal moom laay gàddu yi jàng rek waaw ah, ba ni ñi bis man ci laa nekkoon waaw ah, ndax Sëñ Tuubaa dong laa yëg man lu dul Sëñ Tuubaa mënumaa dolli dara man damaa pere door a dem waaw ah, waaw foofu laa toll lu dul Sëñ Tuubaa du ma dolli du ma wàññi wóor na Seexul Xadiim waaw màggal gi mooy suñ bis nun añ màkka baax gi mooy suñ bis sëriñ bi màggal gi mu wax bu ñëwatee na ñëpp fëx wuy jib xalifaam di ko jox moo doon du Ahmadul Mbakke murit ci màggal sëriñam lay ame lépp ngërëmam ba mujj jekki fa këram tey sant Ahmadul Mbakke waaw Jazbul moy hibo ki kimbiyaat ñu jox gaay neex ba ñuy tegg ahmadou mbak kon yalla nanu yalla defal tawfiq ban jekku magal gi wa magal gi mom fi ndol ni mom la mudul yëpp wara wajal def ci seen itte diko waxtane diko di ubil koy compte di di di bu kenn amati ben programme budul magal dal mom moom fi mu toll benn programme jenn wax gul wara a jëmele ko ci lu dul bi naka magal gi baye ni koy wajal lu ngeen amagoon ba ganar yi nangam non nek fofu rek على النبي منتقى musalli